rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayidna wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi tahirin atayibin wa man ihtada bi hadihim wastanna bi sunnatihim wastarshada bi rushdihim ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi seetaan Mourchid TV seen mbokk daara Babacar Diop moo ñëwaat ak ci seen émission albalaax di leen ci dalal ci tomb bu mag boobu ñuy wax inaayatul islam wala riayatul islam bil fardi wal jamaa di ñaan yal na yàlla def jàmm ci xel yi ak ci xol yi ak ci jëmm yi ak ci nekkin di indi benn tomb ci tomb bu mag boobu muy benn aaya alquran bu suñu borom bi subhaanahu wa taala di wax ni laa taqfu maa laysa laka bihi ilmun inna alsam'a walbasara walfuaada kullu ulaika kaana anhu mas'uula maanaa suñu borom bi subhaanahu wa taala dafa bëgg nit ki lu muy dugg na ko jàng bala caa def erreur mbaa moo tax bu nit ñëwee tudd baati seede yi lañ koy njëkk defal mooy jàngal ko lu war a topp ci baati seede yi lan la bañ koo bàyyi muy tañaxu ak di làmbatu ba réer mbaa ba sànku mbaa mu sànkaate moo tax suñu borom bi subhanahu wa taala ni faalam annahu laa ilaha illa illa allah wastaghfir li zambik na nga jàng ba xam yàlla ni mu nekke yàlla moom dong bul ko yemale ci saw làmmiñ kese kon làmbatu lay doon tudd baati seede yi kese doyul waaye boo ko tuddee yàlla nee na jàngal ba xam baati seede yooyu li muy tekki ak yëg-yëg ba mu wara a àndal moo tax mu ni wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun laa taqfu ma laysa laka bihi ilmun muy looy topp lu ne buñ la laajee lu tax nga di ko topp na ko mën a layil ndax bi ma lay jox dégg muy volet d'information bu lay indil information ma di la jox gis mu di la indil information ma jox la xol ak xel mu di la nattal information yi nga jot nan nga koy analyser ba man ma ko delloo nee na yooyu ma la jox muy jumtuwaayu jàng ak jumtuwaayu natt bu ëllëgee ci yi ma lay njëkk laaj nan nga ko doon jëfandikoo ci lay bokk nan nga jëfandikoo woon sa dégg nan nga jëfandikoo woon sa gis nan nga jëfandikoo woon sa xel mi ngay xalaate ndax yooyu jëfandaay yooyu moo lay permettre nga mën a jàng yàlla mi nga ni gëm nga ko lan mooy yàlla ak lan moo tax nga gëm ko ak lan moo tax mu ni la gëmma ak lan fan nga jëm ak moom ak fan nga nar a mujjee ji ci topp googu ngay topp moo tax kon laa tax fu boobu alqafwu xeñtu la ko mag ñi di wax xeñtu nag opération bu éducationnelle la amaliya tarbawiya la kenn munta nàng-nàngi rek di xeeñtul sa bopp boo déggee xeeñtu kay dafa jóge ci xeeñ ngay topp xet xet gi la xeeñ moo lay giida wala wewi ngay topp tànk bi li ngay topp fi tànk bi jaar nga daa ah, tànk baa ngi nii de jaar na fii de dugg na fii loolu mooy xeeñtu kon xeñtu mooy daa am looy topp mais tañaxoo nangi faawa rek ni damay xeñtu te dara xeeñu la te gisuloo benn we boo mën a xeñ loolu mooy awma kilifa fu ma neex jëm du ma topp kenn ku dara xeeñul nooy xeñto te boo xeñtuwul nag <laughs> a ciy bañ a wax sax yenn yi waaw man ngaa dox ba xeeñ ba kenn dootu la bëgg a jege boo xeeñtuwul man ngaa dox ba xeeñ yow ci sa bopp loo xam ni kenn du ko bëgg a jege su ko defee nag bu ñuy wax xeeñtu nag ni ngay ame sa jur gu nga topp tànk bi wala ngelaw ngay topp xet nee na dëgg ak njub noonu lañ koy xeeñtoo waaye buñ koy xentu itam ci nit lañ koy xeñtoo nit ki xeeñ dëgg xeeñ njub xam fi muy jaar ci moom ngay ñëw di xeeñtu dëgg googu ak njub gi loolu moo tax kon yàlla yun ni ay yonent yoo xam ni dañoo xeeñ xunn dëgg ak njub bu ñu ñëwee ni leen xet gi ngeen di wut ci yàlla ci man la xeeñe yàlla mi ngeen di xeeñtu bëgg xetam bëgg a jot ci xetam xet ga mooy man waxin la waaye ku wuti feneen xet nag bàyyi ma fi te man la yàlla yónni xet ga lay xeeñ ci keneen la jóge ku yàlla te kooka yëpp yéen ñëpp xam ngeen ko moo leen génne woon ca seen dëkkuwaay bu njëkk ba kon nag yoon wi ñuy xeñtoo xetuk yàlla ci dëgg ak njub alquran rëdd na ko ba mu leer alquran nag ni mu ko rëdde ba mu leer daf cee associé nit ki koy xeñtu ak ci kan la ko war a xeñtoo ku mel nan ak bu koy xeñtu yan la war a jëfandikoo yu koy jox information di ko jox xam-xam moo tax maa ngi ci dégg fan yi di ci seetaan ñaar ñuy kenn ki di weddi maanaam ñaar ñooy dàgge te lislaam bi loolu daf cee bari léegi kenn ki <clears throat> wax ni alquran du xalaat diine la keneen ki wax ni diine xalaat la ci xalaat lay tege ma ne pourtant ñoom ñëpp bu ñu waxtaanoon ndànk rek mën na am fu ñu déggoo ndax ki ne alquran du xalaat diine la wax na dëgg parce que yàlla du xalaat soog a xam li muy def te moo wàccee diine waaw kon alquran du xalaat diine du xalaat parce que yàlla mi ko wàccee du sukkandiku ci xalaat soog a def la muy def waaye nag dana may nit mii xalaat la mu wàccee mu jëfandikoo xalaat kon ba tey ñaar ñëpp mënuñoo tàggoo parce que yàlla suñ borom bi subhaanahu wa dafa wax ni bi ma leen wàcceelee diine jox ko ki ma doy mu joxañ leen fe mu leen joxañ won leen ni benn buura am benn yàlla am ngeen di dàgge santeeg moom ca loola jëfandikoo leen seen xel ak seen xalaat kon xalaat dikk na parce que yàlla waxoon naa ko fi xeeti xam-xam yi mu am du ku jóg rek mu jox la ko ca nang ko bëgge waaye dafa am yoo xam ne yàlla nee na ci xel laa koy jaarale afala taaqiluun kon boo jëfandikoowul xel doo ca jot am yoo xam ne bi nga amee xel ba pare ci xalaat laa koy jaar jaarale mu soog a ñëw sa xalaat mooy awalam yatafakkaru ndax ñii di weddi dañoo jëfandikoowul seen xalaat parce que am na xam-xam boo xam ne ci xalaat la ko yàlla di jaarale beneen bi yàlla ni duma ko jaarale ci xel wala ci xalaat ci ci ngëm ki ma ki ma doyloo ba gëm rek laa koy jox inna fi dalika la ayatin li qawmin yuminuun beneen bi mu ni duma ko jaarale ci xel walla xalaat wala gëm mais ci xam-xam ki xam ba pare laa koy jox fi dalika la ayatin li qawmin yaalamuun dafa am loo xam ne da koy xam ba pare yàlla soog caa jaarale nag lam la bëgg a lam la bëgg a xamal mu ni waaye nag am na loo xam ni duma ko jaarale ci xel duma ma ko jaarale ci ngëm duma ma ko jaarale ci xalaat duma ko jaarale ci xam-xam mais ki ma wóolu ba jaawaleetuma kenn na fii dalika la ayatin la yuuxi yuuqinuun kooka maag mooma koy séq kon nag bul wax ni diine bul dàq xalaat ci diine mbaa nga dàq diine ci xalaat déedéet ñoo ànd yàlla mi ko wàccee nag moom moo dul xalaatkat moom du xalaat parce que moo bind xalaat mais ki mu ko wàccee ci moom fokk mu jëfandikoo xalaat mbaa dem waaw moo tax yàlla ni waxal yow Muhammad waxal nit ñi ni oote gii ma jox nga di ko oo nit ñi jëme ko ci man dama laa jox gis-gis bu ko mën a véhiculer moo tax qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basira gis nga ko ala basiratin ana wa man ittaba'an waxal nit ñi ni leen man Muhammad yoon wii ma leen di woo jëme leen ci sama boroom lambatuwuma tañaxuwuma yàlla daf maa jox lamp bu may niital fi may jaar fi may teg sama tànk basiira boobu lan la te yéen ni ko nee leen ku may donn ëllëg itam di ma donn man Muhammad ci woote boobu basiira boobu ngay am mbaa donnoo ma su ko defee kon mu teg ca nag ni wa subhaanallahi wa ma ana min al mu ni waaye nag man Muhammad wax yàlla nee na naa leen wax ni jox naa ko cëram ci sàbbaal ba mu mat sëkk waaye itam duma duma boole yàlla ak keneen gi gi nekk ci man ñàkk koo boole keneen gi mat na sëkk parce que sirku munumaa façonné man Muhammad maanaam xam nga am na ñoo xam ni dañuy woo nit ñi ñu bañ a bokkaaleeg yàlla mais ñoom ñi woo nit ñi pour ñu bañ a bokkaale ak yàlla ñaar am na am na ci ñoo xam ne xamuñu luy bokkaale am na ci ñoo xam ne gëmuñu bokkaale parce que jàpp nañ ni bokkaale moom amul dañ koo tudd baat bi tudd nañ ko mais nekkul te loolu mooy dëgg yàlla kenn bokkaalewul ak moom ndax foo dem te fa gën a xasaw ci bokkaale nga defe ni bokkaalee fa nekk yàllaa fa nekk ndax moo ko fa def da ko faa bàyyi rek waaw ki ki taxaw di jaamu ab xërëm ba mu yàgg moo xërëm ba yépp ñu jóge fa kenn gisatu leen ndax seen seen nekk ci àddina seen nekk jeex na yàlla jële ko fa jële fa xërëm ba léegi ana bokkaale ga kon bokkaale dañ koo tudd ndax bëgg nit ki jëfandikoo xel mais nit bu ni woon man damay bokkaale yàlla yit kii mooy sama yàlla di ko jaamu suba ak ngoon daa yëgul rek waaye bokkaalewul parce que yàlla la mu doon kenn mënu faa àgg ba di ko bokk ak moom bu ko defee nag euh, nit su jëfandikoo jumtuwaay yi ko yàlla jox ca nañ ko ko sante bañ koo philosophie philosophie bu jëm ci weddi ba pare maanaam boo jógee ni yàlla amul ba pare nag ni yow yow philosophe nga dangay gëstu dëgg yow dëgg gi ngay gëstu moom nga weddi am na nag benn kilifa boroom xam-xam bu wax ni am na fu mu àndee ak ñi ak ñi weddi yàlla mooy ki ñëw fekk ñu interpréter la nga gëm na nga gëmee yàlla ñu interpréter ko neneen nu uuteeg na nga xam moo tax nga weddi ko mais weddi woo ko <laughs> moo tax weddi yàlla ci dëgg dëgg dëgg am na ñoo xam ne nee nañu amul parce que nit ki la mu gëm ba weddi yàlla nañu interpréter yàlla jëm na mu ko gëmee moo uute rek mais buñ ko seetoon bi diqa ci lu sew danañ gis ni yàlla ku mu bind rek am na foo ko yége wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh